di teg bi ci loxol sañ Cheikh ak sëñ Babacar mu tagal ñu ko ci loxob jihadis yi fi teew yëpp ak terroristes yi fi teew yëpp ndax ñi ñuy wooyee terroriste ak jihadiste laa bëgg tey ñu leeral ko ndax ñi ñu koy woowee ñu bari di ko weddi waaye ñoom la mais ñi ñu koy woowee ci seen bopp dañ ñoo bëgg a yàq waaye xamul ne loolu mooy suñ dëggi dëggi tur ci ñoom parce que terroriste li muy li muy firi mooy ku aj ku téel lay bañ seenu jubadi képp ku koy reeteet di leen wax dëkk ni ñuy yàq réew mi sàcc gi ñuy sàcc alal réew mi képp ku leen koy wax danga leen di terroriser kon ay terroriste lañ beneen baatu jihad bi nag mooy ay jihadiste lañ parce que ñetti façon jihad moo am jihaad bi yonent bi doon def suñu boroom digal ko ko muy xare badar ak yu ni demee bi ci des mooy jihaad bi nafsi mooy xeex ak sa bakkan bi ci des nag mooy bii Sonko di def mooy afdalul jihaadi kalimatul xaq inda sultaani jaahili yonent bi na ne buur bu gëlëm boo ko waxee dëgg jihaad nga kon sëñ seex neel Ousmane Sonko képp ku mu ci xeex bi moo ko xañ jihaad te koo xañ jihaad yaa ko xañ àjjana lii ngeen woote jihaad la te àjjanay doomu aadama bi mën na cay jaar léeg leen ma gis nit toog ci télé bi mer ne damaa gëm sama bopp damaa yor sama parti waaye woowuñu ma taxaw jooy am na lu mu yëg ci yaramam li mu yëg ci yaramam mooy kii dëgg gi mu woote ak jihaad bi mu woote kum ci tabal mën naa defar sa tey ak sa ëllëg beneen bi nag conseil la boo xam ne dinaa la ko jox sëñ Cheikh pour nga jox ko Ousmane Sonko na xam ne politiciens yi fi daan jaar dañuy ñëw yeeñu ban yeewu ñu fexe ba ñu fal leen ñu joxaat ñu soow ñu tëddaat nelaw ñu sàcc réew mi dem seen yoon mais Ousmane Sonko bi mu ñëwee fekk ñu ñuy nelaw café Touba la ñu jox gu am jar ñu ne jar na xam ne na xam ne état d'esprit bii mu indi ak yee gii mu yee askan wi pour mu jiite leen sax du yomb bu ñu bëggee jiite na indiwaat lu raw lim ñu jox ban yeewu pour mu mën ñoo jiite. loolu moom damaa bëgg mu leer sénégalais yi yeewu nan yeewu goo xam ne jiite leen yombul moom mi ñu yoo sax pour ñu jiite ñu du yomb kon lii mu xalaat ba samp ko ba ñu ba teg ci ba teg ñu ci muy siraatal mustaqim na xalaataat lu ko ëpp pour diriger réew mi leneen li nag fi may tëjee rek ngeen baal ma damay gis ngeen di def ay selli naan ubbi nañ fii selli def nañ fii kafe fii ci Touba ay nit ñu yeewa fi nekk ñoo xam ne kenn mënu leen a xoqatal kenn mënu leen a ger ndax dañoo reggi démb tey doog a ñëw dama bëgg nga de jël Touba nga def ko benn sellir man sama mouvement laa yor que fekk na ma may jaar ci yoon wi xeex mais xeex bi ñuy xeex bu dee ay conteneur Ousmane Sonko mooy poor bi kenn ku ci ne ci ñun xeex nga ba fi nga mën a yem nga dem toog sa kër continuer sa liggéey moom mu ñëw li ñu mënutoon mu fekk ñu ci dolli ñu ci yee ñu ci yokk ñu xam-xam gën ñoo woon yoon wi kon sellir yooyu ngay tijji na nga xam ne Touba sellurub Ousmane Sonko la te ñun ñii fi nekk dinañ taxaw xeex parce que nit ñi bëgg nañ ko.